la migration irrégulière euh, le le problème demeure malgré liñ ciy wax liñ ciy def yëpp ak les risques yi nga xam ne am nañu euh, qu'est-ce que lan mooy noyau vraiment euh, bi. su fekkee dañuy waxante dëgg ah qu'on se qu'on se voile la face le problème existait existe et existera. Mhm. parce que le professeur l'a dit Mexique mu ngi jéem a dugg États-Unis depuis plusieurs années ba léegi dañul par tunnel par des escalade des murs par par la mer. e -hmm. et lan moo indi phénomène bi développé en 2006 en suñu maamu mool yi suñu suñ suñu papa mool yi dañ daan dem géej amuñu GPS ñu gilet gilet gilet de sauvetage dañ daan dem fu sori jékki-jékki fël foo xamante ne. xamuñu ko jékki-jékki gis la lumière yi xam ne yegg nañ feneen. yegg nañ yegg naa Espagne. Mm-hmm. au jour d'aujourd'hui maa ngi ak sama GPS maa de sauvetage et même gaal bi mu ngi fi. Mm-hmm. donc j'ai les moyens techniques et humains pour dem. Mm-hmm. donc la réalité mooy l'Eldorado européen il est toujours là il existe toujours. parce que le sénégalais est de nature nomade. Mhm. fépp foo dem ci àdduna bi di nga fa fekk sénégalais. donc dem bi mu ngi am. la quête d'une vie meilleure moo ñuy poussé lan moo indi dem bi parce que Sénégal kan moo tekki ki nga xamante ne jàng na ba am bac plus 5 def costume cravate dem dugg bureau yor cartable. Mhm. kooku moo gën a tekki ki nga xamante ne mu ngeeg mille têtes de bœuf nekk ci diggu àll bi. Hmm. parce que avec son salaire il n'arrive pas à joindre les deux bouts. balaa fin du mois balaa fin du mois bi woyofatul. <laughs> donc ki nekk ci digg àll bi sàmm bi avec nekk ci digg paysage bi. toor la tasaaroo ne nañu dajale li ñu am que contrairement euh, li mu wax ñëpp on n'a pas de statistique de yoo xamante ne wane nañu ñan ñoo fi liggéey ba am cinq cent mille pour dem ak ñan lañu seen waa kër dajale mhm. parce que li li euh, la l'écrivain la John la femme Fatou John li mu wax Fatou Fatou Diom li mu wax nee na ma vie la vie que je que je laisse ici mieux vaut ma dee ci yoon bi moom ma ko gënal parce que nit bu fa tollee ça veut dire que bi bu fa mhm. tollee parce que bu ñu xoolee démo l'âge moyen du Sénégal est à 19 ans. Mhm. plus de 50 pour cent des Sénégalais sont jeunes. ils devraient être où. études yu mujj nee nañ 17 ans la sax nag. donc nag donc donc donc donc mu ngi gën a wàcc donc mhm. plus de pardon plus de 50 pour cent du Sénégal ils sont jeunes. ils devraient être au lycée. il devrait être au lycée alors que on le taux d'alphabétisation du Sénégal bu ñu ko bu ñu ci boolee français ak arabe on dépasse pas cinquante pour cent c'est quoi le problème mm-hmm. est-ce que la politique de la jeunesse quand on nous vendait les cinq cent mille emplois est-ce qu'elle existe toujours est-ce qu'elle est réelle si on compte le nombre d'emplois qui sont créés euh, durant ces douze ans-là est-ce que ça arrive à ce niveau jamais personne ne pourra prouver que ça arrive à ce niveau leneen li xamante ne moo ci nekk mooy COJER euh, par euh, pardon pas COJER DER FNPJ yooyu noonu yëpp. su fekkoon financement bi man sàmm sàmm ndaw bi nga xamante ne maa ngi jugee àllukaañ mu ñëw mu soumettre dañ may jox ma répondre à toutes les euh, toutes les conditions dinañ ma jox mais non à l'approche des élections on se rend compte qu'il y a de financement et ak combien on finance des gens. non li nga wax nii xëy na avant amoon na. amatul mais at yu mujj yi non je veux dire at yu mujj yi gars yi fexe nañ vraiment dañ koy politiser sénégalais yëpp ñoo ci ah. dañ koy politiser la dernière fois maa ñu koy dindi mooy ki nooyee le pape de la euh, DER moom nee na am na ñu doon def ay pression ci moom mais il a toujours refusé. dañ koy politiser la réalité sur le terrain mooy dañ koy politiser. à l'approche des échéances politiques des financements sortent. y a des jeunes de l'opposition, des activistes qui ont bénéficié de ces financements. financé? un peu moins de 5 pour cent tapalay la rek. non tapalay la maintenant li nga xamante ne mooy su fekkee man da nga may financer 500000 man nit ki nekk dakaar nga financer ko cinq cent mille yow da ngay dawal sa oto da ngay gis ni marchand ambulant yi da gis 10 personnes yu rang di jaay survêtement. je pense que le besoin d' achat de survêtement toll na ni 10 yooyu ne ku si nekk di nga jaay 10 par jour. e si bénéfice bi nga jëlee ci benn survêtement est-ce que dina ma 200 300 ou 500. donc imaginon mu nekk 300. Mhm. nga jaay 10 par jour ça te revient a 3000. rien que ça nga war ci lekk war ci ndekki war ci añ war ci reer war ci dëkk war ci solo war ci yónnee dëkk ba mhm. li ñu war a gëmloo sénégalais yi mooy la réussite n'est pas à Dakar la réussite n'est pas dans les costumes ou les cravates la réussite n'est pas dans les euh, dans les la réussite est dans la terre la réussite est dans le travail l'agriculture est une très belle solution parce que comme le dit Khalifa Sall le Sénégal actuellement c'est le monde de tous les possibles li ñu am kenn amu ko mm-hmm. am nañ ndox bu doy am nañ suuf bu doy am nañ géej même su fekkee ni joxe nañ lépp mais am nañ gaz am nañ pétrole et on la jeunesse cette force là ki nga xamante ne moo ñu war a dundal mm-hmm. cette jeunesse là bien formée bien encadrée fi ñu du ñu xool kenn donc cette jeunesse là moom lañu war a gëmloo ni da njàng nga am xam-xam mais tekki du si diplôme diplôme fayul j'ai mon bac ça signifie rien am naa maîtrise am naa licence ça signifie absolument rien xam-xam la mu ngi sa bopp qu'est-ce que tu sais faire mais ça ne nourrit pas la famille qu'est-ce que tu sais faire <laughs> malheureusement qu'est-ce qu'on sait faire mm. li nga li may wax ñu bëri mooy da gis euh, le jeune européen ou bien le jeune américain ou asiatique après son bac il dit wuu damay dem euh, je vais chercher un boulot d'été nous après le bac qu'est-ce qu'on fait j'ai mon bac non moi je dois aller dans un bureau non moi léegi du ma raxas ñoom la la ñuy dem defi plonge serveur loolu mooy li nga xamante ne pour préparer seen année scolaire universitaire donc dans les familles dañ leen war a wax ni xale bi nga xamante ne am na bag am na licence am na nar bu liggéey ñëwagul da ko war a liggéey da ko war a créer mais euh, li nga may wax nii li euh, nga may wax nii lu baax la te mën na nekk ah. dafa war a nekk mais ça demande un peu mais dans l'immédiat tey jii nii euh, est-ce que amul ay solution la war nañ ko mën a teg pour encourager les jeunes ñu mën a toog Sénégal. su fekkee en attendant nag de trouver une solution comme bi ngay wax nii boo xam ne dina amal njariñ Sénégal. su fekkee dañu bëgg liggéey duñu duñu def taf yëngal. on donne le temps au temps. le, le de faire on donne quand il y a eu des problèmes avec la jeunesse. su boobaa il a parlé il a euh, programme. Euh, xëyu ndaw yi xëyu ndaw yi c'est quel genre d'emploi c'est des contrats de stage des ou bien nga dem bali tari. oui mais comme l'a dit. Euh, la fera la fera la fera loolu boo ko defee 4 mois 5 mois ça te fait un bon départ. maintenant su ma ko def man su man su su fekkee jàng naa ba pare jàng awma dara lu may def ñu dugal ma foofu noonu ma war fa def 5 ans 5 euh, mois six mois ma am 600000 ma gis en face sama kër kenn koo xamante ne sama morom la ñoo doon ànd chaque jour. Mhm. mu dugg ci gaal gi dem nekk tabax kër. dimbali njaboot parce que suñu sociologie dëkk moo toll noonu foofu noonu. lan mooy tekki dañu war a attaqué dañu war a attaqué sur plusieurs plans le plan sociologique c'est quelque chose mais yeneen plan yi tamit duñ ko fàtte. Mm-hmm. parce que le plan socio le plan sociologique mooy indi lan mooy tekki c' est quoi la signification de tekki. parce que nga ko waxee le Sénégalais il en retard ci lu bëri bëri. comme tekki mooy dawal oto bu rafet yor bureau voilà loolu du tekki alors que entre tey ba dem Afrique du Sud wala Maroc ñi naan les femmes ñoo ëpp xaalis ay fermiers. c' xam ne voilà. modèle de yooyu la ñu war a jaay Sénégalais yi. Mm-hmm. moo gën suñu suuf yi. ay étranger kese ñu leen koy jox. ils ont mm-hmm. des hectares partout dans le Sénégal. fépp foo bëggee bay di nga fekk keneen ku fa teg loxoom parce que loolu noonu après yow yow mi nga xamante ne yow yaay yow yaay paysan bi ñu jël sa suuf lan moo lay dese dellu si Dakar. Mhm. gars yi dañuy ñëw jël sa suuf euh, moderniser ko motoriser ko ba pare di employé waa dëkk bi après waa dëkk bi fan lañ jëm. ils faut se réduire à avoir que leur salaire alors que dañ daan dañ bay dugg. looloo naroon na xew ndengaleer. looloo naroon na xew voilà te du ndengaleer kese la yam mhm. mbaan fa la njëkkee booy fa la fa la fa yi génnee ba nit ñi mhm. dee donc du phénomène bu bees. suufu Sénégal bi yëpp jaay nañ ko ñi nga xamante ne dama daan bay dugub dundee ko at bi yëpp gerte ma jaay léegi dugub buñ dundee sax amul parce que suuf bi ma waroon bayee ñeneen jël nañ ko. Mhm. te li ma doon waxaat sànq laay dellusiwaat lan mooy tekki am xaalis mooy tekki wala njariñ sa askan mooy tekki nit yor na milliard jëriñul kenn nit yor na cent franc jëriñ àdduna àdduna ak la ci biir. donc foog ñu defaraat mindset yi defaraat xel yi defaraat jeunes yi wax leen ni tekki du Europe. tekki mu ngi Sénégal. mu ngi Europe mais mu ngi Sénégal. pour ñu euh, mën a gëm li nga xamante ne moo nekk Sénégal.